الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بكو جلدي غناو بني سانتي سنبارهم سبحانه وتعالى ñi سيدنا kenn yeyowul ñu koy jaamu ku dul yàlla ki seedene jaamam la bu mu yónni woon ci ñun kenn wurta sos jaami wunu yàlla lu dul loo xam ne moom la yonente boobee jàngale woon gannaaw loolu mbokk julit sun xutba tey bii mooy fàttali loo xam ni yeyoon na daanika weer wu nekk ñu def cab xutba ca mooy fàttali waat lan mooy ponki ngëm mbokk nañu xam ne diine ji ci ñaari wàll la séddili ko mooy gëm ak def lu baax lazina amanu wa amilu te def lu baax loole munta valable lu dul ngëm moo am ngëm dana jëriñ amma nit ki mën naa deeyaale ngëm fekk deful sax jotul def lu baax teewul yàlla yërëm ko waaye boo defoon lépp lu baax ci deeyaale woo ngëm doo am ngërmaane yàlla loolu waroon na jamono ju nekk waaye rawoon na jamono ji nga xam ne ñoo ngi koy dund mooy jamono joo xam ne doomu aadama yi jóg nañu ku nekk yaa ngay woote jëme ci loo xame ne nii ma ngay safaanoo ak la yonent yàlla ba doon woote woo jaami yàlla yi ndax dañ leen di woo jëme leen ci yàlla la woo leen jàngal leen ne leen lépp lu ngeen di yaakaar àdduna ak alaxira ci loxo keneen ku dul yàlla la nekk ba tey jii boo xoolee doomu aadama yi la ëpp seen kër-kër ndax mooy riir jëm ca jàkka ya riir jëm ca daje alquran ya la mooy riir jëm ca folklore ya ak caaxaan ya lu tax ndax loolu lañ leen taaralal ne moo yoon bi gën a gàtt yoon bu gën a siir pour ba leen aljanna loolu nag mbokk jullit yow mi yàlla bind may lam xel nga la waay del toog di xalaat di seetlu te xam ne suñu diine jii day diine la joo xam ne jógewul amerig jógewul Chine mu ngi jóge ci borom asamaan ak suuf fan la ko wàcce woon ca Makka fan lañ ko dundee diggante Makka ak Madina sahabatul kiram ñoo ko jële ci sunu yonente sallallahu alayhi wa sallam tasaare ko ci àdduna lépp lu nekkul woon diine jamono ba yonent beek saxaabaam di dund du nekk diina bi ilaa yawmi diin lépp lu loo xam ne dafay jur ngërëmal yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ne leeralal naa leen ko amul lenn lu leen di jegeel yàlla amul lenn lu leen di jural ngërëmal yàlla lu dul leeralal naa leen ko amul lu lenn lu leen di alak lu dul leeralal naa leen ko ca bokk na ca lam ñu leeraloon mooy nañ moytu ya nga xam ne mooy woote ya ñëw gannaawam ak sos ya ñëw gannaawam loolu nag leen dong moo la cay musal mbokk jullit mooy nga am xam-xam xam-xam boobee la nga cee war a jëkk a xam mooy man lan lay gëm ngan la way yow mbokk jullit xamal ne sa baasu ngëm mi ngi tege ci juróom benn ponk ponk yooyu lañuy ñuy tuddee ay piliers yoo xam ne bu ca daanu ngëm ga daanu na ba ca jiitu mooy nga gëm sa borom jalla waala ñaareel ba mooy nga gëm ay malaakaam ñetteel ba nga gëm ay téereem ñeenteel ba nga gëm ay yonentam juróomeel ba nga gëm ne allaaxira mi ngi ñëw juróom benneel ba nga gëm la nga xam ne mooy ay dogalam loolu mbokk julit bépp ponk ca ponk yooyee ay xutbay xutba la laaj doonte ne ne ci liñ la ciy tënkal rekk mooy bu ñu waxoon gëm yàlla moo ko gëm yàlla mooy nga gëm na yàlla suñu boroom mooy aji bind lépp mooy aji moom lépp keneen ku dul yàlla bindoo dara moomoo dara yow dañ laa moom yàlla moo bind ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo bind jibril alayhi salaam di ko gën a tedd ci kaw asamaan ci yàlla muhammad gën a tedd ci ay jaamam waaye ay jaam kese lañu yàlla moo leen moom yàlla moo leen bind njëriñ ak lor ci loxo yàlla la nekk nekkul seen loxo nga gëm ne yàlla moomu subhanahu wa taala mboolem xiiwal yi nekk ci mboolemi jaam moo ko ca def mboolemi xiiwal yi nekk ci mboolemi jaam moo ko ca def waxumaa nag yow amul lenn loo xame ni nii nekk na suñu borom mu ne laaj leen xataa yéefiir yi seen pas-pas lu mu doon bon bon suñ leen laajee moo ku leen di wërsëgal mu jógee asamaan ak suuf moo gaañu taw bii nga xam ne moo wàcc nekk base suñu dund ana kan moo ko wàcc ana ban ci jaamu yàlla moo moom taw ku dul yàlla ban jaamu yàlla moo moom gàncax ku dul yàlla soo ko laajoon yéefiri ñu ne yàlla kan moo leen may nopp yi ngeen di déggee ak bët yi ngeen di gise kan ana ko ñemee taxaw ne sama bët yi sëñ diw moom ma ko may sama dégg gi sëñ diw moom ma ko may xattaa yéefir arab ku leen ko may ñu ne yàlla ana mooy génne dund lu dund ci lu dee jël benn ganaar nii génn ca nen jël nen génn ca ganaar jël peppu dugub génn ca gàncax guy dund ila axiri ñu ne yàlla ana moo leen di wërsëgal guddeeg ba cëkk kan moo moom oxygène ku moom ndox ana ko moom ay cellule ku moom ay organe ana mooy dundal jaami yàlla yi ñu ne yàlla suñu borom ne waaw laaj leen ndax kon duñu ragal yàlla moomu bañ koo bokkaaleeg dara mbokk kii mooy suñu boroom ñu war koo gëm ci ni moom dong lañu war a jagleel mboolimi jaamu yi lépp loo xam ne jaamu yàlla la ci rukko ci sujuut ci woo ñaan woo xettilu ko képp ku ko defal kudul yàlla yaa ngi bokkaale ak sa borom ca sa borom day ne na dogu na ni képp koo xam ne bi ngay dee yaa ngi bokkaale ak yàlla yàlla araamal na ci yow aljanna sawara mooy sa wàccuwaay ba faw mi ngi noonu am amma képp koo xam ne yàlla wërsëgal na ko ba bi muy deyee bokkaalewul ak boroomam dara même bu fa kastalu woon ca la nga xam ne nii mooy bakkaar yu mag ya du tey suñu borom yàlla dana ko mës yërëm tabbal ko la nga xam ne mooy aljanna loolu kon mbokk jurit bi gëm lii mooy jurit bi tranquille heure boo gisee doomu aadama yi di kër kër yi jëm ci seen moroomu doomu aadama boo xam ne amulu leen njëriñ amulu leen lor ñu jàpp ne kooku yor seeni xéewal kooku moo leen di sàmm kooku loo def ci moom mu mu fay lu ko ëpp da leen di yërëm da leen di yërëm ca xam ne ñi ngi ci yoonu réer ca xam ne yonent yàlla yi kenn musu caa woti jëme ci boppam kenn musu caa woti jëme ci maamam ñoom ñepp lañ doon woo jaami yàlla yi mooy kaay leen ngeen gëm yàlla yaakaar leen yàlla sukkandiku leen ci yàlla suñu borom yàlla mu ne tur yi gën a rafet man la ñeel tur yi gën a rafet man la ñeel mooy aji bind ji mooy ayi buur bi mooy wërsëgal mooy sàmm mooy aar mooy yërëm mooy ñeewant mooy lépp woowe leen ma sama tur yooyee ca ngeen bàyyi képp ku ngeen gis muy woo keneen ku dul yàlla la nga xam ne mooy payam mi ngi koy xaar heure bu ñëwee ci man ngal la waaye jàngal leen lii seen njaboot dund leen lii xamal leen ni li ñuy dégg ci rajo beeg télévision bi loolu amut ay wootekat lañu ñuy jëmee naari jahannam ñeel képp ku leen wuy ci jullit du yaakaar ko dul yàlla du sukkandiku lu dul ci yàlla yàlla mi nga gëm na ba nga nekkee sa biiru yaay yaag moom rek la woon moo la wëlbati def la ma toqamani yu deret génn la roof la ay yax may la ngay dégg ko gis mu wàcce la ci kaw suuf yàlla moomu dong ngay nekkal heure boo delloo ci sa bàmmeel yàlla boo mu dong ngay nekkal heure boo demee yowmal qiyaama keneen ku dul yow ma nga am ko doy sëkk lool jàngal leen ko njaboot gi gannaaw bi ngeen ko dundee am ma ñaareelu ponk ngëm bi mooy ngeen gëm na suñu borom yàlla daa am ay malaaka malaaka yooyu ñëw dundee asamaani juróom-ñaar doon lim boo xam ne yàlla moo ko xam yàlla bind leen ci ñu jaamu ko duñu lekk duñu naan duñu sëy seen lépp jaamu yàlla la duñu nelaw ñu ngi sabbal yàlla guddi ñu ngi sabbal yàlla bëccëg malaaka yooyu suñu borom séddale leen ay rôle yu ñuy def ci jaami yàlla yi ku mel ni jibril ak ña ànd ak moom ñooy wàcce la nga xam ne mooy wahyu yi mooy téere yi ci kaw yonent yi kii di mikail la yàlla dénk lii di taw bi ak wërsëgi jaam ya kii nga xam ne mooy israfil moom mooy yor béjjén ba nga xam ne bu ko ëffee asamaan ak suuf tasaaro kii nga xam ne mooy malakul mawt moom la yàlla dénk mboolem ñi faatu moo leen di faat gannaaw loolu suñu borom yàlla jalla wa daa di wàcce ci ñun ay jaamam ñoo xamee ne nga la waay yow jullit gëmal ne kan moo la gën a jege ndax say xarit yi ngay àndal guddeeg bëccëg laa wallahi samay njaboot laa sama soxna bi may àndal ci kaw lal laa wallahi lazi la ilaha illa hu xamal ne ñi la gën a jege mooy malaaka borom boobu nga xam ne fa fajar jote yàlla wàcce ci yow ci yow ñaari malaaka soo demee ca kër ga ña nga ak yow bureau ba ña nga ak yow biir géej ña ak yow suufu montagne ña ak yow foo mën a nekk malaaka yooyu ña nga ak yow di xool la nga xam ne yaa ngi koy def ñu koy enregistré muy téere bu lay xaar yowmal qiyaama malaaka yooyu nga xam ne suñu borom boole na la ak wattukat yoo xam ne amul lenn lu lay dal lu dul yàlla tudd ci yow mooy alxafaza loolee la jullit war a gëm heure boo demee bay sukuraat yàlla jox leen melokaan bu rafet bu taaru su doon jaar nga fa neex yàlla ñu ñëw dalal la sargal la tagg la félicité la rocci sa ruux ci jàmm jaare la ko fa neex yàlla amma bu doon jaaroo fa neex yàlla ñu indi melokaan bu njàng duma la dóor la toroxal la yëjji la gannaaw ba yóbbu sag ruux faneex yàlla heure boo wàccee sa bàmmeel doo fa fekk ab sëriñ doo fa fekk imaam doo fa fekk ndey wala baay wala xarit ñan nga ñoo la fay fekk mooy ay malaaka malaaka yooyu nga xam ne nii ñu nekkee naka mi nga tudd nakiir ak munkar ñoom ñooy ñëw laaj la ay laaj ma yow jaamu yàlla bi ana lan kan moo nekkoon sa borom bi ngay jaamu te ban diina nga nekkoon loo doon wax ci yeneen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii mooy ñetti question ya lay xaar sa bàmmeel ban association nga bokkoon ban tarix nga bokkoon kan moo nekkoon sa sëriñ kan moo nekkoon sa baay kenn du la laaj ci loolu dara liñ lay laaj mooy sa borom sa diine liñ lay laaj mooy yeneen yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku nekk ci ñun war a waajal loolu amma malaaka yooyu bu ñu demee yowmal qiyaama ña jaaroon fa neex yàlla yàlla na yàlla boole ñu ca daañu la ñu wàcc ci yow escorté la tey jii da ngay xool kii nga xam ne mooy footballkat bi gën a siiw bu doon daa wàcc aéroport de Dakar la nga xam ne mooy musiciens yi wàcc aéroport de Dakar ni leen ndaw ñi di gàttandoo malaaka yi noonu la ñuy gàttandoo nit ñi baax ña naan leen ñun ñoo nekkoon seen xarit ci àdduna xamu leen ñu woon waaye ñoo nekkoon seen xarit ci àdduna ci àdduna malaaka yi borom bi subhanahu wa taala nee na xatta xamalatul arsh mooy malaaka yi gën a kawe ci malaaka yi fu ñu toll ñi ngi ñaan yàlla ay yàlla jéggalal jullit ñi ay yàlla yërëmal jullit ñi ay yàlla sa àjjana ji yàlla na ci dugal jullit ñu baax ñi boole ci seeni soxna ak seeni njaboot loolee mbokk dellul ci suratu Ghafir ak geneen soor danga ko fa fekk lii mbokk mooy tënk ba nga war a tënk ci gëm koo malaaka yi borom boobee gannaaw loolu mbokk jullit nga gëm na suñu borom yàlla subhanahu wa taala daa wàcce ci ñun ndax doomu aadama yi heure bu mbir amee ku nekk sa xalaat doy na la sëkk borom bi yàlla wàcc ay téere ngir téere yooyu doomu aadama yi téere yooyu nga xamee ne nii am na yu bari yu ca jiitu woon ba ca mujjoon gën ca mat mooy la nga xam ne nii moom mooy alquranul karim mbokk alquran mooy lettre bi la yàlla bind yow Moodu Saw yow Fath Thiam yàlla yónnee na la ab lettre leetar boo xam ne am na ca six mille aaya ne la lii nga war a gëm lii nga war a weddi lii nga war a def lii nga war a bàyyi leetar boobee waraf la ci képp kenn ci ñun mu jéem a xam lan la yàlla di wax ak man ci loolu ndax yàlla jàpp nga ne sa doom ji nekk Amérique moo ko ëpp daraja tey ana kan ci yéen moo doon am doomam mu nekk Amérique mu bindu ko ab leetar lu dul dana dem xool ku dégg français wala anglais mu liiral ko leetar boobee kon ku nekk ci ñun war a xam lan la yàlla wax ci alquran yàlla lam wax ci alquran la koy leeral mooy sunna yonent bi salallahu alayhi wa sallam ñu jéem a jàng téereb yàlla bi jëm koo gëm jëm koo topp borom boobu subhanahu wa taala gis nañu ne loolu mooy ay waxam leneen lu safaanoog loolu xamal ne ak réer la lu safaanoo ak alquranul karim xamal ne ak réer la wa ma za bad alxaqi ila dalal waaye it ñu xam ne alquran yalla daa tànnoon ab jamam mu yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wa ganna gannaaw ba mu yónnee ay yonent yu baree bari jitu ko mu daa di indi benn yonent moom mi xam jamono xam ne jamono ngi jëm ci li ñuy tudde mondialisation aduna nek li ñuy tudde village planétaire doomu aadama yi li ngay xam li xew Angleterre wala di nga xaw li am feneen xamewoo ko li xew sa dëkk li xew démb unité 22 gi xawma ko et pourtant démb dégg naa ñu ne reine d'Angleterre faatu na kon adduna yépp nekk benn ca la yàlla yónnee benn yonent bu mu yónnee ilaa kaafatan li noos mu tëj mboole yonent képp koo xamee ne nii weddi na ci yonent yi benn ku mel noonee ngëmam baaxul julit ñun ñoo gëm Muusa alayhi salaam yonent yàlla la ñun ñoo gëm Isa ibnu Maryam yonent yàlla la ñoo gëm yonent yàlla Muhammad mooy mu jél yonent waaye naka noonu nit képp ku ca donni ku ca dolli benn yonent yàq ca génn benn yonent ñoo yem gannaaw yeneen ci yàlla muhammad ba mu faatoo sahaaba ya suul ko ca bàmmeelam ba muy xaar bar zaq ngir jóg képp ko wëlbati koo ci ne diw mi yenente la sama maam ji yenente la sama nangam ji yenente la mbokk loolee ak kéeféer la képp ko woote wa ne yonenti yàlla la gannaaw yonenti yàlla muhammad nañu xam ne loolu ak kéeféer la loolee bu leen ci am sikk sàkk mi ngi noonu bu ngeen koy wax ci dee it wax leen ko ca dee loolu mi ngi noonu képp ku woote woo gannaaw yonent yàlla muhammad ñu ne ki yonent la kooku ab yéefar la loolee ñu bàyyi ci xel bu baax gannaaw loolu mbokk julit la nga xamee ne nii moom mooy juróomeelu ponk ba mooy ñun ñëpp nañ bokk gëm ne allaaxira mi ngi ñuy xaar lan mooy allaaxira ñaari dund moo am mooy dundug nattu gi ñu yàlla teg ñu koy dund nga xam ne dundug jëf la gannaaw ba dundug pay dund ak pay googee fan lay commencé ci lal bi ngay sukuraate ki nga xame ni nii dafay gëm allaaxira mooy nga gëm lépp lu nekk ci gannaaw dee wax naa la ko sànq heure booy dee ay malaaka ñoo lay jëlsi yóbbu sag ruux kaw asamaan gannaaw ba suñu borom yàlla wàcce ko gëm bàmmeel ci allah gëm àllaaxira la bokk gëm ne bu ñu dekkee yàlla dañuy xisaab ci gëm alaxira la bokk gëm ne mbooli mi jaam lu ma sa dox seen diggante ci ay problème yàlla dana ko rek la yomal qiyaama xatta bayu ma yi yàlla dana dajale mbooli mi jaan mbooli mi ñay mbooli mi xar mboolem bayu mu ma sa am mboolem problème bu ma sa dox seen diggante yàlla atte ko ceg maandu téem loolee dañ ko war a bàyyi xel ci gëm àllaaxira looloo tax jullit nga bàyyi xel ñaar sa diggante ak sa boroom ak sa diggante ak say moroom ngal la waay moytul tooñ say moroom bari na ko ñëw àllaaxira julleem ya mat na koor ya mat na teewul day dem sawara lu ko waral mooy tooñ yu dul jeex yam yóbbaale ñu jël tuyaaba di fay jël tuyaaba di fay ba tuyaaba yi jeex ñu jël bàkkaar ñam doon tooñ xëpp ko ko lii ku nekk ci ñun da ko war a gëm amma mbokk jullit la nga xamee ni nag mooy ah jeexatul ngëm yooyee mooy doomu aadama bi gëm la nga xamee ni mooy ay dogal mbokk doomu aadama da ngaa war a gëm ne sa borom yàlla mooy ki xam lépp dara réeru ko lépp lu fi amoon xam na ko luy nar a am ba ila yu mi diin xam na ko li nga xam ne sax amul bu amoon nu muy demee sax xam na ko mi ngi noonu li amul sax bu amoon nu muy demee xam na ko bokk na ca mu ne yéefir yi bu ñu nekkee biir sawara dañ naan yàlla bàyyi ñu dellu àdduna daan baax def lu baax suñu borom mu ne même bu ma leen delloo woon it dañoo doon ñu sabewu dañuy delluwaat ci kéefir googee nga gëm ne yàlla xam ne lépp waaye nga gëm ne yàlla bind na lépp mbokk suñu borom yàlla dafa am téere bu ñuy tudde lahwil mahfuuz mboolem luy nar a xew ba ilaa yawmi diin bind na ko ca nee na xattaa garab garab gi nga gis mboolem xob bu ci nekk bis bu mu woowee yàlla bind na ko bis ba muy wadd ca garab ga yàlla bind na ko mboolem la nga xam ne pepp la yuy dugg ci biir suuf mboolem la nekk ci biir géej amul lenn loo xam ne daa na zarra wala lu ko yées lu dul yàlla bind na lépp lii la jullit war a gëm gannaaw bi nga gëm ne mbokk jullit amul lenn loo xam ne dana xew ci kaw asamaan ak suuf lu dul dafa neex yàlla amul luy xew ci diggante asamaan ak suuf lu dul dafa neex yàlla loolee moo tax ba yow jullit ngay boole ñaar ñaar yoo xam ne bés bu ne nga fàttali ko sa bopp ju fukki yoon ak juróom-ñaar ca la gën a néew ñaar ya mooy lan mooy dogul jaamu yàlla ndax loolu rek a taxoon yàlla bind la waaye it ngay dimbali ko ca yàlla ca xam ne julli gi du mat lu dul yàlla ca jàpp koor ga aj ga sarax ya lu dul yàlla ci jàpp doo mën a mucc ca bàkkaar ya lu dul yàlla la jàppale bu ko defee lépp loo xam ne def nga ko mu sotti nga sante ko yàlla lépp loo xam ne nii dal na la ci ay nattu nga muñe ko yàlla mbokk loolu ngay wax bés bu nekk yàlla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yàlla ñun jullit ñi dey yow rek lañuy ñuy jaamu ay yàlla ñun jullit ñi day ci yow rek la sukkandikoo mbokk jullit bi mel nii mooy ki nga xam ne mooy ki maa maadaama lépp ci loxo yàlla la nekk dootul yaakaar ku dul yàlla du sukkandiku ku dul ci yàlla xatta jaami yàlla bi gën a tedd muy sunu yàlla sunu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax danga jàq ne yaa muhammad ndax danga nga ñaanal keneen na ko na ko yàlla na la muhammad sàmm yàlla na la muhammad xettali yàlla na muhammad yokk say xéewal laa wallahi da ngay gëm ne salaatu salaam jaamu bu yàlla la suñu borom yàlla mu ne ay yéen eh, julit ñi yàlla ki malaakam ñi ngi julli ci yenente bi yéen julit ñi julli leen ci moom ay mooy ñaanal leen ko yàlla jégal ko yàlla yërëm ko su ko defee julit yaay ki libre yaay ki gore yaay ki nga xam ne kenn dong moo la tiim keneen tiimu la ku dul moom muy sa borom jalla waala keneen ku dul yàlla dangeen war a ànd dem jaamu ji yàlla xoolal ki nga xam ne mooy suleymaan alayhi salatu wasalaam yàlla def ko yonent baayam di yonent ay maamam di yonent yàlla def ko buur tàggatal ko jinne yi tàggatal ko nit ñi tàggatal ko picc yi suleymaan boobee xoolal keroog ba mu woowee ki nga xam ne mooy laa ren di saba ab yéefar bu doog a tuub dugg ci lislaam lan la ñu yàlla nettali wa aslamtu maa suleymaan lillahi rabbil alamin man de maa ngi jébbalu ànd ak yonent yàlla suleyman jëm ci yàlla ci borom mi ndaafan bi ndax kooku xamoon ne na suleyman mi, ak li mu yor lépp moroo moom jaamam la du jël ay mbiram di ko ko du dem di jébbalu ci suleymaan kañuy war a jébbalu mooy ka nga xam ne asla lahu aslama man fi samawati wal ardi taw an wa karha suñu borom yàlla mu ne ndax doomu aadama yi daan jël seen xol di yóbbu feneen daan dem di jublu leneen te suñu borom mu ne mboolem asamaan ak suuf lépp jébbalul nañ yàlla jalla wa ala ci mu soob leen ak mu naqari leen mbokk julit yëkkatil sa bopp bul ko sëggal ci kanamu keneen ku dul yàlla bul toroxlul keneen ku dul yàlla bari na c'est pas possible buy am yowmal qiyaama koo xam ne mbooloo riiroon nañ topp ko ñépp jàpp ne mooy texel jaam yi bokk na ci ne ñuy jëkk a cheene tabal la biir sawara suñu borom yàlla moo moom ay jaamam ña ca baax moo ko xam ña ca bon moo ko xam góor-góorlul rafetal sa pas-pas góor-góorlul doyloo sa borom alaysa allahu bi kaafin abda yàlla mu ne waaw xanaa man wurmaa doy sa sama jaam doy lool sa boroom ci bul jaamu ku dul moom bul sukkandiku lu dul ci moom bul yaakaar ku dul ci moom la nga xam ne mooy àdduna ak alaxira nga gëm la yonent bi alei salaam doon wax mboolem mbindaafa ni buñ dajee woon bëgg laa jëriñ duñ la mën a jëriñ lu dul loo xam ne yàllaa ko tudd ci yow mboolem mbindaafa ni buñ loo woon bëgg laa lor duñ la lor lu dul yoo loo xamee ne nii yàlla subhanahu noo taala da koo dogaloon ci yow mbokk lii mooy juróom benn ponk ponki pas-pas yi nga xamee ne nii képp koo xam ne dee yàlla na ko day amul benn sikk sàkk ci ne foo mën a jaar àddina mooy sa wàccuwaay képp koo xam ne manqué na ci benn day xamal ne fu mu jaar jaar dana nekk sawara mu nekk wàccuwaayam loolu moo tax ñu ngi ñaan suñu borom yàlla yal nañu yàlla xamal lan mooy ngëm yàlla na ñu yàlla gëm loo lëm ñu gëm ko yal na yàlla may ñu cafeelu ngëm yal nañu boole ñu gëm ko bañ koo bokkaale ak dara yal nañu boole ci ñi nga xam ne dañoo gëm ay malaakaam yal nañu boole ñu gëm ay téeréem boole ñu ñu gëm ay yeneen tam boole ñu ñu gëm yowmal qiyaama boole ñu gëm la nga xam ne mooy ay dogalam te yal na dogal ci ñun yiwu àdduna ak yiwu àllaaxira defal ñu àjjana muy suñu wàccuwaay musul ñu ci mbugulum bàmmeel ak mbugulum sawara allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar